alhamdulilah ñëw leen seen revue de presse lamb alxamesu tey jii ak nouvelle bu neex combat bu mag bu taxaw mu di combat jànq suñu lamb mu ñu xamal ne Baye Ndiaye borom alburax production décroché na ko diggante Eumeu seen ak ki xam si ni moo di Tapha suñu lam mu ñu xamal ne combat jànq bu rëy taxaw na kàddu yu njëkk yu Eumeu Sène yëkkati jëmale ci boobule combat mi ngi xam ne combat bi mi ngi doog a ñor te fi mu jotee fi la suñu lam ñu xamal ne kii di Eumeu Sène mu ngay xam ne dafay kontaan ci dajeeg mbër yi ñuy wax ay jàmbaar lañu waaye le géant du Baol Tapha ma ngi koy xamal ne tôt ou tard xamoon ngeen ne daañu daje waaye daje nañu te Eumeu Sène vrai jàmbaar la beneen combat ngi nii bu taxaw diggante Njaga Caam ak ci di Mamour bu Faas combat boobee Bamba Milano mooy ki nga xam si nii moom moo ko taxawal ñu ñëw ci première jàkkaarloo bi ñu nar am diggante rëg-rëg ak ki nga xam si ni moo di bombardier ginnaaw seen combat ba mu taxawee ak léegi nga xam ne jàkkaarloo guñu jamaykee mi ko tëgg la 13 août la leen di boole ñu jàkkaarloo ci combat buy dox diggante Baye Mandione ak Bébé Diène suñu lamb mu nga ñëw ci mbiri Sa Thiès ñu xamal ne kii nga xam si ni moo di Sa Thiès benn adversaire rek moo ko fi dese fi mu toll nii day obligé jël ko moo di Gris Bordeaux suñu lamb mu ngay ñëw ci diggante ki nga xam si ni moo di Zarko ak Diène Kairé ana kañ la ñuy jàpp datu ko boobee beneen combat ngi nii tamit bu ñuy xaar dat ba ngir ñu mën koo jàpp diggante Zos ak ki nga xam si nii moo di Ada Fass amateur yi bëgg nañoo gis boobule combat te bëgg nañoo xam ana kañ lañ koy amal ñu fàttalikuwaat ndem si yàlla si Jules Baldé Junior mi ngi génnoon àdduna 4 juillet 2021 ba 4 juillet 2023 ñu koy fàttalikuwaat ñeenti at a ngi nii moom ki nga xam si nii moo di Jules Baldé su suñu laam mu nga ñëwaat wala ñaari at a ngi moom Jules Baldé Junior suñu la mu nga ñëw ci Abou Ndiassé digganteem ak Giro Seras suñu laam mu ngi xamal ne suba la ñuy jàkkaarloo ca Bantamba TV combat a neex diggante Abou Ndiassé ak Giro Seras beneen combat nii démb lañ doon jàkkaarloo muy diggante Jam Thierry ak Ahmed Dem ñoom ñaar ku ci nekk yëngal nga Bantamba TV ku nekk wane nga confiance bu mat sëkk keneen ku ne ci entraînement yu mat sëkk moo di ki nga xam si ni moo di Karbala suñu laam muñ xam ne ma ngi ca wàccaay wu rëy ci combat bi mu jëm le 16 juillet ci digganteem ak ki nga xam si ni moo di fëgala bu ngor keneen ku jógee ci ndam moo di jël dem suñu lam mu ñu xamale ca Ngunjaan fa la doon bëree combat spécial ci digganteem ak Sombi mu daal di cee am ndam nekk quatrième victoire am muy yéet muy yóotu li nga xam si ni moo di cinquième victoire am ci digganteem ak ki nga xam si ni moo di Sa bu ndaw combat bi mu jëm le 22 juillet moom jël dem tam Mbousnakh production tëgg ko su laam mu ngay ñëw ci Père Modou Bey ma ngay analyser diggante Nandi Fall ak Papa Boy ñu jëm niki samedi combat boobu nga xam si ni Sambay Fall moo ko tëgg kii nga xam si ni moo di Père Modou Bey ma ngay ne Nandi Fall na opté bëre bi Papa Boy Djiné opté li nga xam si ni moo di xeex bi kii nga xam si ni moo di Fourier suñu laam mu ñu xam ne fi mu ngi tegale ñeenti défaite muy nekk talent boo xam si ni défaite yaa ngi koy bëgg a sànq ndax ginnaaw palmarès boo xam si ni mi ngi toll ci neuf victoire ak six défaites quatre défaites yoo xam si ni da tegale moom Fourrière suñu la mooy ñëw di ñu xamal ne week-end bu nar a Ngor nar a wala week-end bu nar a tàng jër ndaxte seen ñaari champion ñoo bokk week-end bu bëree Cité bu Ngor mooy bëree samedi 15 juillet kii di Feugueleu bu Ngor bu ñu xëyee dimanche bi moom mooy ki nga xam si ni moo di ko tuddee mooy week-end bu décisif foofee ca Ngor ñu sant leen gërëm leen jox leen dig daje ni